sant samay ñaari waajur di sant ñi nekk si salle bi ñëpp góor ak jigéen di leen siyaare bu baax di nuyu presse beeg ñëpp di nuyu ku si mel ni Eric Favre nekk suma papa suma lépp di nuyu waa axlu biri ak beneen rasamaan bi xam nga di nuyu tamit Ngaaka Blindé Tapasaka Ngaaka moom ñoo dëkk man Ngaaka Blindé laa faral Tapasaka axlu biri gi faral ñoo tas sama yaakaar gaal gi ñoom ñaar kan moo ci waa axlu biri ñoo toog nii xamee naa leen bu baax waaw di nuyu Eric Favre di nuyu Yaya Diop suma papa suma lépp moom tamit di nuyu madame Nathalie jabaru Eric ndeysaan di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm moom maanaam ci avion yi rek lay nekk mais bu si de c'est yéeg avion c'est kii daal yee mais ana plainte plainte bi nga xool na nga koy plainte ngaa ko plainte waaw plainte bi ku si mel ni Yaya moo yëg coow li na ma léegi buusi da wàcceel plainte bi te parce que dama jëm ci komba jëm ci combat boo xamante ni nii maanaam waaye ça va jamartalement ak ci combat bii ma jëm waaw ak combat yi ma jógee te parce que bu si dëkku ko xam xam ni damaa mën king boxing yàlla bu arbitre bi sifflé nag ba ma jël garde bi kii naa ko teg lu metti tapet la kii mënul teg kenn lu metti ndax màgget la desitu hôpital la daa yàgg bilaay kii bu ma ko jàppee mu xam ne laaw de passe ba l'espèce terrasse tubaab bee la wax loolu de mais bilaay walaay taala y a beaucoup de problèmes dans ce pays il n'est pas solution kenn amul sama solution y pas de chômage buusite y' a pas de chômage bu ma la jàppee di nga xam ne booy di nga xam ne dama dama dama chômage ba sonn dama bëgg a génn ci chômage bi te dina la teg lu métti. yee. kii du dóor du talone du puus du paas. mais yéen ñaar dafa fu ngeen jaaroon de. kan doon daw te gis nga. ku doon daw bañ fa jaaree ñëpp seetaan nañ ba ñuy bëre <laughs> quatre fois la daw génn mu am quatre effectivement mu leer sénégalais mais imagine toi maa ngi moom ci fi ñu jamaat ñu war a tëj barrière war a korose kii caax yi. boo dawee ba nga génn sax caaxee lay delloo nga naawaat duggaat ci biir kër. ci dalee da ngay bondé dóor yi métti. dal bondé ca wamul daw de. kii imagine toi arbitre ne pii maa ngi diggante mu dégg daali mooy muñal. day dégg daali muñal. ki ay jubu jubu laay def si kanam bi. am nga combat bi paas dama koo dóor dóori mu daw génn. dem naa rapporté ku njëkk a dem faju ji ñeenti yoon. mais laa bëgg. ay jaaro lañ takk nañ ko xeexee. non lool du baax si yow. mais loolu du baax si yow lan wax xeexul loolu noonu. ah te parce que Eric Favre dañoo waxaale king boxing. waaw ah. te parce que xeexuñu xeexu noral kanam. dégg nga te parce que médecin yooyu amul fii ni daal nii fii si réew mi. yee. mais nañ jël ndoxu xorom. waaw non day saf. kon day saf. mais bëggulu saf. non kon day kon day day saf si moom laa wax. te parce que ñu ngi changé ak yaa ngi dégg. ñu duñ ay ngaaxa. loolu la la joolaa di naan kata moori burkaani ka sumay bale. kii bu ma ko jeexoo de. yow lan nga xam Laurent Ndiago bi moo la gën a xam ni guddi yi bu Siteu si ay loxo yu wóor laa nekk. mais kii si loxo yu wóor yu nekk lu ne. yee man maa gën a nekk si ay loxo yu wóor ndax hmm. man maa ko teg nii sax si ay loxo yu wóor. loxo yu wóor yi ma nekk ku si mel ni Eric Favre. ak madame Nathalie madame Favre. imagine toi li ma la kon tey si yan loxo laa nekkaat ginnaaw yàlla loolu noonu suma papa gis nga nekk ku dërëm génnu gaal moom la ma sant bar sëñ Bamba ndax moom bu nekkee si ay loxo wóor rek man damaa tëdd njaaxanaay barki leeru alxuraan waa naa yow kii ni ma ko mënee ëpp na kii daa mel ni ku jebet kii mënul ñax mënul def dara mais fii daa am kilim kilim bi est-ce que yéegul 16. kii tollul lim nit ñi mais xoolal taalaay fii am na kilim wala amul kilim. amul dara ventilo lañ taal yaa ngi gis. kii xamul sax kilim kon daa ànd ak kilim. fil la bu ñu branché. moo tax ma ne la kii jàngul te ñu dañoo jàng la personne di cardinaux les louis et le sud et de cardinaux. waaw yow loo jàng. man lu ma jàng muy franco arabe. xool parce que xul uuxi yàlla bàyyee. déggoo ye ñun jàng nañ farango ala ana tarsabu ani tarsabu loran ala mazarati loran mi ngi jàngi. waaw léegi waaw xul uuxi ilayya annahu isama nafarun minal jinni fa xaalu inna samal qur'an hëjaban yëgdi ila rusdi fa amana bihi wala nusrika bi rabbina na teg foofu noonu maanaam ñun ñii sax laa la jàng nañ franco arabe ana talsabu ani talsabu laurent ilal mazarati maa ngi jàngi yaa ngi yàq sunu diine bi neex rek non mu ngi yàq suma diine bar Bamba daa neex Lamine yaa ñu ne waa jàng la trois personnes di singulier de la personne qui parle il ou a avec sans elle Sëñ Bamba il ou elle avec sans elle bul yëngal sama diine da ngaa neex jërëjëf kontaan naa ci ñoom bu baax a baax mais fan ngay waajale affaire bi parce que bravo Lamine préparation waaw Lamine après il y a l'intervention de de Yaria pour euh, montrer le kickboxing parce que là on, on va pas parler arabe le 2 décembre on va faire du kickboxing quand même waa ah waaw la deux dégg nga maanaam li Eric sax xam na lu war a xew sama diggante ma moom te parce que li mu làq dégg naa ko laaj ma lu Eric wax Eric nee na il faut ñu wax si le 2 décembre bi grand théâtre national ma war a ñëw grand théâtre war a tegal kii lu métti. grand théâtre lenn la fa tàmboon dem fa yëg di fekk te man xeexa ma fa yóbbu. 6 mois dama ko jàng xeex mu niil ma war am lan visa xaw ma laisser passer gars yi kale ko ma tëdd xonet dama mer de. bari sëñ Bamba naa la dóor ba nga yow. mais kii man moom moo gën a mer. man six mois lañ ma kii lu garaaw. dañ kaa aj dañ kaa aj comprendre nga. kii ma ku ma daan sama premier combat moo xam bu jee daan kii presque deux zéro laa ko dóor ak dix mille francs a sama combat moom dégg la wér kii man maa ko teg ay loxoy wóor xanaa ko maa gën a pare xam ne lu ñu wax def ko mel ni Eric Favre. gis nga billaay. na xam na lenn nag ba àdduna sasoo ba tey musul romb dëju puune foo ko rombee yow ba àdduna sasoo ba tey nga ñëw ñu leel dëj bii puune moo fi gaañu fan la day làkk daal leneen la lay wax mus naa kii dëju puune <laughs> parce que sama benn booy maamam puune la maamam ba yaa ko sang maa ko ii sang moo dama moo dama ñeme sang rafet te ñun ñee saabu ñëw mais yaa bul bul bul yàq sama signature te parce que kii waruma kii kii dama kii ni ma mu mënee laa kii maa moom dundi waaw non non joxante ne loxo joxante ne loxo ayca jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax merci Pape Siré merci beaucoup Lamine on va remettre le micro